benn élément bu ci ëpp sol mooy am nañ accord de principe. loole mooy bataax bi gën a neex bi nga xam ne ñi di waa FMI jëlee nañ ko ci seen daje ak autorité sénégalaise yi ci ñaari ayu bés yi ñu génn accord boobe nag ñi di waa FMI buñ ko dëggalee nguuru Sénégal dina jot ay financement yu takku. Sénégal dina bénéficier benn décaissement boo xam ne ñaari décaissement la mais boo ko boole dina toll ci. 166 milliards. moo ne day représentant FMI yi ñu ngi xam ne koom-koomu Sénégal mu ngi sooxe te loolee li ko waral bëri na tukkee ci Covid 19 bi ci guerre bi am ca Ukraine ak tension sociopolitique yi amoon ci réew mi yàggul dara ba tax experts yi xoolaat bu baax prévision yi nga xam ne defoon nañ ko ci wàllum koom-koom. yokkute gi ñu doon séntu ca 2024 dina wàññeeku bu baax di fukki tombal juróom-benn wàcc ba 8 virgule 3 pour cent. ci wàllu naam njëg yi ku moywul dina gën a yokk dina jóge ci 2 pour cent ñëw ci 3 virgule 9 pour cent. waaye nag loole teewul Sénégal ba léegi moo jiitu ci réew yi nga xam ne ñoo bokk ci diwaanu sub-Sahara ci wàllum croissance économique. malgré que croissance bi baissé na nekk ci 4 pour cent Sénégal toujours mu ngi ci quand même benn croissance bu am solo boo xam ne moo ëpp. Afrique au sud du Sahara maanaam Afrique au sud du Sahara mooy 48 pays yi ci nekk seen taux de croissance bi buñ ko xaymaa mu ngi tollu ci 3,3 pour cent yeneen tomb yi nga xam ne ñii di waa FMI abordé nañ ko mu jëm ci wàllum subvention énergie bi réew Sénégal nag dina woy di ko wàññi ba mu toll ci deux cent quinze milliards ci at bi ñu dëgmal la ak itam li jëm ci wàllum déficit budgétaire nga xam ne moom itam dana wàññeeku ba yegg ci quatre virgule neuf pour cent ci PIB national bi.